Souley waaw euh, xamuñu ndax il va être placé sous mandat de dépôt ou est-ce qu'il va être libéré ou est-ce que ces ces ces ces ces excuses vont être euh, acceptées. Mm-hmm. mais am na ñu commencé di poser le débat ne euh, nañ ko juger en flagrant délit. Mm-hmm. jarul une instruction d'abord nan nga apprécier les les les les les faits. non mais apprécier mais Birame Souleye moi obligatoirement par force parce que. journaliste la politique la man Pastef xeebuma kenn dama leen di suivre mais Birame Souleye mais il est abonné à Ndiombe Birame li ma ko li ma ko xaw ma ko personnellement musul moo jàkkaarloo mu nuyu ko musul wax mu jóg dugg sama nopp jàkkaarloo ni mais Birame Souleye Birame Souleye da nga koy xool trajectoire am il est permanent dans waxu njombe ba pare permanent dans waxu Ndiombe permanent ci balu c'est pas la première fois biram day wax loo xam ne soo ko déggee sa nopp yi di yiw biiw mu balu suba mu waxaat c'est peut-être sa nature li may wax mën na surprendre son sort c'est la justice moo koy décider. Euh... mais sur les propos. mais c'est c'est mais aussi man bon voilà man du ma ci sore trop parce que peut-être man mosuma wax lu méngoog li mu wax mais yàgg naa fi wax toj toj. donc voilà mais yéenewu ma ko même si c'est un je le considère comme un adversaire irréductible adversaire bu ma yéegi ci ennemi mais adversaire des gens de passé on est adversaire sawaay mais dëkk bi ni mu doxee adduna bi ni muy fonctionner koo yéene kaso ah fekk sa xel guddul wala da nga beew parce que lii xew suba kenn xamul ma yàlla nañ ci yàlla musal mais biram man seetaan naa ko Birame Souleye muy wax seetaan naa ko ah muy balu mais xam nga may lan moo garaaw est-ce que xam nga lan moo dangereux hmm. balaa nga koy xam rek nga traversé yow xam nga mu xam naa ne xamoo ko parce que doo politicien mosoo ko def mais rassemblement meeting gars yi tàccu affaire yi jax tëgg bi yuuxu yi ñu tàgg la mais di nga wax ba laal fa warul laal on le soo fa jaaree ngay jaar mbooloo moo garaaw ak ak gis nga micro amoon benn mag bu doon micro balu fetal ñoo yam parce que micro taal na dëkk Rwanda lan moo ko taal micro moo ko taal. rajo mille euh, mais rajo mille collines micro su amul rajo du am moo taal Rwanda un million de morts ay maset la leen doon dee donc euh, dëkk bi tamit nañu moytu micro mais may c'est pas pour rien ma toog presque ñaari at ah man lem sama lépp ni patt noppi parce que wax dëkk bi dafa dem ba nga xam ne peut sooy xam nga li garaaw da ngay wax nit ñi di analyser mais léegi nit ñi analyser par exemple c'est Yakham Mbaye qui parle su leen neexee sax ñu couper son bi xam fii la euh, euh, Sonko fii la keneen fii la c'est ça moo tax je pense euh, moins ngay wax ah plus tu en sécurité mais biram soo ma dama xool seetaan ñaari séance yi biram bi mu toogee di biram Souleye bi mu toogee di wax ak biram fay biram Souleye fay bi mu toogee. di parler non biram Souleye. biram Souleye. Birame Souleye bi mu toogee di wax xam nga vidéo bi bi mu toogee di balu nga xam ni biram bi ak bii du benn. il a réalisé sa ah, maa bëggoon nag nga fekk ko instant bi mu tàngee war a wax wala muy wax nga ne ko doo fi wax dina xeex ak yow mais soo ko xeexoon na xam nga tey suñ nit xamoon li muy wax xeex ak moom ba du ko wax peut-être keneen jël micro bi wax li mu bëggoon wax ñu dugal ko fu la dem day dem remercier kooku donc man la xam nga man je juge sama jugement surtout sur des njombe toujours des relatifs parce que man tamit dama am palmarèsu njombe dama mënoon def ay njombe toog nag sama xel yedd ma consort ma ngay kii mais Sénégal moo toll foo xam ne may ci analyse bi mu ci am li gën a jafe ci doomu aadama la ñu war def xam nga mooy lan mën a wax diis wax benn ak genn wàll ni pat ñun la juróom-ñetti yeeg genn wàll. mais xoolal aussi le discours politique. dérive verbale yi. mais attends mais may bu ñu ni. non dérive politique xoolal bu ñu ni dérive politique. xam nga dérive lan la mais dérive bi du tey dérive bi dérive bi fi mu njëkkee commencé mais man fi ma bokk la fi nga bokk. après. non la presse. ah la dérive mais dérive ci presse la njëkk commencé fii. dérive nañu xoolaan affaire yi xool date yi xool at yi dérive mais fii nga fi gis journaliste bind njombe boo xam ni homme politique journaliste ñoo njëkk am fitu wax loo xam ne homme politique waxuñu ko fii ñun ñoo tijji bokkul bi man la waxuma ne ñoo ko tijji ce serait quand même et trop sévère mais dama ni bind nañ fii wax fi waxaat fi loo xam ni yóbbu na la tey fa Birame Souleye nekk wax nañ ko fi y a l'excès un peu partout mais man mais ci li may wax ni dama ci màndu parce que xam nga lu tax man tamit defkat laa woon waaw man wax naa fi wax bu ëpp peut-être léegi xam nga avec lage ak dal bi affaire yi ñëw ba nga xam ne da ngay am sax doom nga wax mi ngi ci YouTube nga ñëw mun la mais papa pourquoi nga wax li nga wax nga commencé di yedd sa bopp donc man munuma yedd Birame Souleye mënuma ko yedd mais xam naa ni propos yi mu wax man ñemewu ma du ma ko wax mais mënuma ko yedd mais je pense que nous autres politiques en fait mais may ñun suñu apport les politiques quel est apport par rapport au au aux besoins des Sénégalais besoin sax dama préoccupation de Sénégalais peut-être lu ci bare dans la plupart des cas dañuy yokk seen i stress rek dañuy yokk seen i problème mais si si non si on est mille politiques peut-être quatre cinq six sept maximum dix ñoo ci nekk di jël en charge aujourd'hui soo nee da ngay xool nguur gi nga ni président de la république ni premier ministre ah ni le gouvernement ah ni les directeurs généraux les directeurs mais limal ñoo ñëpp ah peut-être cinq disons exact nga jël les députés conseil économique et social bon allons exagérons disons sept cent huit cent personnes sur dix sept million toujours gis nga ci lool nga rax ci opposition bee consort lay njombe foofu toujours lay jóge on est des grands donneurs de leçons on parce que dama ni si laay si laay bokk alors que je pense qu'il nous faut la distance léegi xam nga prouvé na benn affaire ka wax yëngal na yëngal na réew xam bu njëkk ñun dinaa jël exemple ci biti waxtaan na réew wax yëngal na réew bind ah, yëngal na yëngal na réew donc moo tax ni bon affaire yi ay xataraayook wax ju bari jaru ko et pourtant peut di ñu dëgër bopp rek waaye peut-être après mais pourtant Macky Sall